kan mooy yegg ci kaw turbine bi tey ñaar lañu. non ñetti lañu sax ñett lañu tey ñu yegg ci kaw turbine bi ah. kii nga xam ne mooy maam Moustapha Niass sunu yaay Aminta Mbengue Ndiaye waaye la waykat bi wax xale baa ngi nii. Eh. <laughs> waykat la waykat bi wax xale baa ngi nii Anta Babacar Ngom ñu ne jaag. mais mais c'est le maam maam Mbaye. Moustapha mii. Ah. baayu Anta Babacar Ngom mii. baayam la. baayam la. maa ngi ñëw ci Anta. ci lu leer laa la ko. kon xamoon nañ ni dinañ daje. non baayam la. garab ci kaw lay fekkante. est-ce ko. en vrai de vrai. garab ci kaw lay fekkante. <laughs> tribune yéen kay ne parti socialiste ak AFP fu mu nekk nii ci suux la ñu jëm na nit ñi di suuxee xam nga ñii nga xam ne ñoo jël gaali looco yi di dem mbëkki waa parti socialiste mii ak AFP dañoo jëloon gaalu Benno Bokk Yaakaar. waaye gaal ga nag fu mu nekk nii yegg nañu si ci pandaw ga soo moytuwul dañuy suux ci biir géeju Benno Bokk Yaakaar ndax nag bu dee séddaale daanaka moo leen ci yóbbu woon ku si nekk sédd nañ la ba nga doyal na parti socialiste mii jël na wàllam ci biir Benno Bokk Yaakaar mhm. waaye kii nga xam ne mooy AFP it wax fa dëgg neex yàlla cër nañu leen fu mu nekk nii nag amatul benn cër bu des si biir Benno Bokk Yaakaar ndax yegg nañu si ci pandaw bi mhm. waaw bu ñu fi desee dañuy suux rek ànd suuxandoo li ci des moo di kay sippi seen loxo uti ji feneen fu ñu dugal seen loxo wala rek ñu accepté rek gore ba dee maanaam suuxandoo ci biir Benno Bokk Yaakaar te loolu lay gën a niru parti socialiste mi ak AFP géeju Benno Bokk Yaakaar bi ña ngi cay waaj a suux te leen see jóg balaa muy gaaw. ñaar yi c'est des socialistes AFP comme PS. c'est des socialistes benn njaboot gi la rek. benn njaboot njaboot gi la rek. comme APR ak PDS. waaye ñu ne <laughs> du ma ñëw ci xale bi bàyyil ma ñëw ci. non ñëwal ci xale bi. ma ñëw ci xale bi. gannaaw sunu yaay jeex sunu maam ji ñu ne xale baa ngi nii Anta Babacar Ngom ñu ne jàkk jàkk 36 ans ans la am waykat bi nee na di titi wax ku mu nopp ab jëkkëram benn jeeg du nelaw waaye Anta Babacar Ngom mii nee nañu réew mu mu soxla benn opposant du nelaw xale la bëri na doole am xam-xam am xam-xam xam-xam te laaj ma lu mu wootee ah, ah waa alternative citoyenne ñoo ko wax. waxuma dëgg. ndeysaan. yaa ma def juróom. ñoo ko wax. waa alternative nee nañu. xale baa ngi nii nee nañu réew nag xale. président xale. da ngay am xam-xam. te léegi nag président jigéen. te ndeexul ba neex nag waaye xale bi nag bu taxawee nag réew mi mu dugg nag wax fa dëgg ne xale réew mi day soppal nag. jàppee ko waxi jaaykat. Ah? du bëgg a lambale. waaw mooy taxaw bi def marche di def buzz. waa léegi xale bii fu mu taxaw ci war a def meeting. yéeg ci kaw oto bi taalal loxo yi. 1 mètre xam nga xale bi nag. wala 24 février Anta Babacar Ngom fu mu nekk nee na. nay leer man damaa sàpp sama ndënd de. <laughs> Sénégal laa bëgg ni ko ñëpp bëggee. Bougane dafa bëgg Sénégal. parrainage Ousmane Sonko bëgg Sénégal. parrainage Karim Meïssa Wade ma nga xam ne ñu ngi koy teeru. Mm-hmm. def lépp laal basang teeg séegu dafa bëgg Sénégal. waa léegi moom mu ne pourquoi pas moom xale bu ndaw nee na damaa soxla Sénégal comme ñëpp te nee na nag je suis candidat non pas pour faire ou refaire déedéet ñoo ma fi def affaire de fëgg jaay de. Criberi taxumaa jóg waaye damay ànd ak sénégalais ngir ñu tabax projet bi nga xam ne ñun suñu projet la ñun seen waa Sénégal. Anta woote noonu ba tey Anta ñoo ngi ñëwaat tegal sa baaraam Barça ou Barsax. Mhm. géej gi nga xam ne nee la. moom mooy armeer bu yaatu bi yow loo wax yow as asma da nga bëgg samp sa ndënd yaay te asma yow boo tax non yow yow moom bu la neexee nga samp te boo samp boo xam nga ne yow li ñu naan boo sampee dëkk bi yëngu <laughs> barça u barça hmm. nee nañ nag responsabilité bu bari bi di nga jëy gumba ba mu tëb teel barki na <laughs> dama coroxaan lool man dèjà sax dama gaaw a coroxaan dund bi baaxul. damaa man ak na neexul ba neexul njiit njàkk nag Sénégal moo di njàkk. Mm-hmm. sunu gouvernant yi ñoo di njàkk. Mm-hmm. ci xale yi nga xam ne ñooy suux si géej gi bu fekkoon gis nañ lu leen téye fii duñu dem. lekkati kese waxi kese. naxuti béy te téyewu fi kenn. Barça gi mbëkk mi. ba may nekk université la man date bi sax fàtte année bi sax fàtte naa la. avant ça sax. la de dem. suñu kër benn week-end mais dégg ñu naa xale yaa ngi jël gaal gi mbëkki ma ne leen luy mbëkk si lañ ma koy expliqué. depuis 2007. 2007 mais je te dis mais mais dama yàgg. Abdou mm. euh, euh, ministre de ñoom ñoo doon piloté. xoolal ñuy mbëkk di mbëkk ba jamono jii ñu continuer di mbëkk. nee nañ lu ñuy njaag nag suñu gouvernement yi am nañ ci wàll wu yaatu fi mu toll nii nag wàll wu ñuy jël ci tàngaay bi sakkan na lool metti na de capital bi fii ci diwaanu Dakar maa mbay mu ñemee cravate ba dee dig dina la romb di xeeñ dibi ndax tàngoor te seen guneen Dakar yi dañuy xoola dañuy sañse ba mel ni jëmbóor yi ndekkete yoo tajuñu fi contre temps la ñuy demee te ñuy sangu waxuma dañuy sañse te gars yi sangu duñu mais nee nañ nag fu mu nekk nii jaaykati ndox yi fu mu nekk moom kuy investir investir si njaayum ndox mhm. fii ci Dakar njaayum ndox gars yi ñuy ñàkk bari dina nga dugg sàngaay bii nga dugg si bis yi di bëgg rek nit ñi poxantaan yi pour ñi nga xam ne seen poxantaan day gilli am na fi de ba pare gars yi du ñu <laughs> de ah président na mbënd mi démb maa ngi fi wax waa Sangalkam mairie bu Sangalkam maa ngi ko fi wax nga xam ne war nañu leen jàppale président Macky Sall nee na réunion interministérielle la ñu war a woote nu mu gën a gaawe ngir ñu par rapport à la mbënd mi mais mais Mambay hmm. est-ce que xam nga benn affaire waxuma avant. Mhm. dañu tuddee plan Orsec. waaw Orsec. Orsec Macky Sall a été le premier à organiser le plan Orsec. qu'on appelle Orsec. parce que avant il y avait un truc un organe mais Macky Sall moo njëkk a def Orsec. Mhm. et je parle sous le contrôle de l'actuel directeur de l'IPRES qui était directeur de l'ONAS Amadou Lamine Dieng maire Waxuxunda plan Orsec donc moom ci boppam Macky Sall xam na problème mu. inondation. organisation. Mmh. organisation de secours il sait le problème il connaît. kon xam na def. ba pare commission parlementaire. Mmh. mais Pape Sagna Mbaye depuis il a besoin d'aller pour savoir le problème de l'inondation. il connaît eh eh eh bien teg fa sa baaraam tegal foofu sa baaraam. bilaay. li ñu naan xale baa nii présidentielle 2024 Anta Babacar Ngom nee nañu fu mu nekk la buy gis fu sori. moom Sénégal la bëgg yóbbu feneen j'espère que moom Idrissa Seck du ko wax ne sa vision romb jam ñaajo wala vision moom romb na Sédima xanaa. wala Kër Massar. waaw sañ bañ a kon nag vision mi ngi fan. waaw moom nee na Sénégal. Sénégal kon vision dafa wër ndomb nee na. Walf Quotidien dafa ñëw ci candidature bu Benno Bokk Yaakaar ay risque nga ca de. risque nga ca. risque nga ca ci nga na nga xam ne am na koo xam ne boo ko tànnee yaakaar naa ne parti bi tas. Mm-hmm. Mm-hmm. ku nekk berse daara dèjà sa tànn bu ñu te am na ñu ku am na ñoo xam ne commencé nañu gàddu seen i kàkkaar seen i dëbës samp seen dënd ku ci mel ni Mabo Diaw démb gis nañ ko nee nañ candidature bi choix ba président Macky Sall di def risque nga sa Juan Branco mii nga xam ne ŋàbboon na xeexu Sénégal xurfaanu jàmbur boo ci sojee ba tëdd hôpital daa sa bopp fu nekk nii moom ci boppam moo xurfaan kon nag na lijjanti dossier moom Juan Branco ñoom ci boppam ñooy plainte waa Paris ci boppam ñoo ko plainte neneen ko fa nga dugal sa loxo du foofu. xam nga lu ñu ko plainte. Ah, moo di. dossier bi mu def pour yóbbu Sénégal fële. def cee cité. daf cee cité ay je pense coopérant français. ou militaire mën na leen mettre en danger donc kenn ki sax joxe na ba joxe numéro téléphone am ak ay données personnelles. lu ko jaral loolu ñu ne loolu nag moom ko ko nangul. on doit le rappeler à l'ordre. lu ko jaral loolu. waaw ndax ñu ñu. xawaan léegi li jëntil loolu. enquête Ousmane Sonko mbii. def na de éliminé guñ ko de mille présidentielle 2024 yi nga xam ne moom nee na dañ koy investir kañ la ñu jàpp nag. le 15 samedi. te nee yi Sonko da cay dem. ginnaaw suba. ndomb gi dina dindi ndomb gi tekki ko te dem ca investiture ba delluwaat sa ndomb ba. Mhm. nañ dese na moom Ousmane Sonko ba tey am na chance bokk ci élection yi. donné pour inéligible le compte max Sonko noonu la ñu ko tuddee. Mhm. a encore juridiquement des chances à faire valoir ce que dit la loi électorale mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko nee nañ jeexagul les jeux sont d'être faits <laughs> ah, kay dans l'affaire Mame Mbaye Niang nag deux thèses ñoo fës ne toog loo xam ne ni manees na nekk ak porox ndollu ngir moom bu bokk ci élection yi ñu dëgg man juróom benn ñoo ñoo ñeenti ci ay rescapé fukk juróom fukk yu nga xam ne kenn gisu leen muy gaal bu suux sa waaxi ndaar sa mbël ba mbël ba foofu nga xam ne fa la dex géej géej gi daje nga xam ne mool yi sax balaa ñu fay traversé déjà du du du da ñëw rek il faut nga mm-hmm. déjà nga xam géej mm-hmm. nga xam dex mm-hmm. ba pare nga am lu nekk sa bopp non dinaa la jox benn affaire du looy ñëw rek romb de da ngay compter juróom ñaari vague juróom ñaari vague laata nga fay yegg ah eh, du ñëw du ñëw rek du fa de sept vagues dafa am waxtu boo xam ne man nga fa romb du ñëpp foofu mën a dugg. doo foofu taw rek am na waxtu boo xam ne boo fa duggee doo génnaat. Embouchure moom ah dama ndar nga laajte. Embouchure ah, ah, kenn dama sa goxu maam Kumba Bang googee. kon maam Kumba Bang nga boo demee ndeppe gi su xóota ba. am nañ fa suñuy secret. boo demee sa foofu noonu. sa mbël xaw ma. Hmm. am nañ fa seen secret dem leen. yëfi secret la. secret la. ah même du Saloum ak Mam Mendes. Mam Mendes ak mi ni Juan Branco mi nga xam ne dañu ko porte plainte waa France ko porte plainte état ba ci boppam. Il lui reproche d'avoir mis en danger des fonctionnaires français au Sénégal en accusant deux coopérants français à ah, wàccul gaaw en les citant par leur nom looy wax bay tudd tur yawit bay rek. màggalu Touba gi dikk na ba noppi suñu màggal gi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp. Mm-hmm. àdduna bi yëpp daa daanaka ñun daal màggal gi ñëpp ñu ñun ñooñu ko ñooñu si ñee. porte parole bi nag nee na nañu nañu wax ci ndox mi bëgguñu mu manqué assainissement yi nañ ci taxaw lii daal daanaka moom mooy point yi nga xam ne intéressé na lool Serigne bas Abdou xaadax sa Thiès doomam dañu ko rendi ngeen jégal ma ci kàddu gi Jakarta man la. aywa. parti socialiste ña ngay fàttaliku Ousmane Tanor Dieng. samedi bi. samedi lay doon. ndeysaan wàllum suuxum gaal gi diggante nag ministère des affaires étrangères ONG espagnol euh, Caminando Fronteras noonu lañ koy liiree espagnol fu mu nekk nii nag ña ngay paasante bal bi kii naan kaan yow la kii naan di nga wax amul kii naan ñi ñoo dee kii naan ñi deewuñu <laughs> ña ngi koy jokkalante robinet mbedd lañ ko def fu mu nekk nii. xulo yàmba xulo yàmba. robinet mbedd ci boppam lañu koy def ña ngi koy jokkalante jokk maa jol jokkalante gi. ñu la alerte lu mu wax de prétendants encagoulés guettent la la moindre incartade. incartade fu mu nekk nii ñu am na ñoo xam ne ñu ngi si suuf. <laughs> ña ngi def lu ñuy def di suuf di xaar il suffit benn prondol bu ndaw am. la moindre incartade. Barça wala Barcelone. yéene kaay baa ngi dikk na ci. gaa ñi tey jii nee nañu. Hmm. démb ñun bi ñu toog a Fabrice mu ngi koy wax bi ñu toogee fii di waajal suñu matinal bi 5 heures du matin gaal suux na. sa waaxi euh, euh, euh, ndar 56 ñoo nekkoon ci biir gaal ga ñeent lañ sa génne lañ sa sippi ña sa des kenn gisu leen juróom benn fekk nañ ñu faatu ay waay xam ne loolu metti la moo leen taxoon jóg dem uti ji dem uti ji moo leen taxoon jóg arrestation Birame Souleye Diop les députés Yewwi dénoncent une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale foofu la ñu toll trou d'air pour les lan candidat du système ah ñi ñooy wax système bi ah. Ndaamal Kajoor Khalifa Sall mi ci reetaan bi borom tapis rouge bi nga xam ne daanaka mënul fexe ba dikk. Karim Meïssa Wade Meïssa Thioro. Meïssa Thioro bu ndaw ba tey baax na. le mandat. le mandat. vision croisée de Bougane Gueye Dany ñaari simili moom a dese. Hmm. vision fu mu nekk nii daanaka nag garab ci kaw lay fekkante te ñaar ñii dañoo fekkante si kaw te seen gis-gis yi dafa ànd. Hmm. Ousmane Sonko xale la. ndaw la am na xam-xam te bëri na doole Bougane gee Dany dikk na xale la am na xam-xam te gëm sa bopp la woote. te am nañ futur président bi day xonq. benn bu xonq moo fi nekk gum des na beneen bu xonq bu war a dikk en tout cas ñaar ñi la rupture du socialisme et du libéralisme néocolonialiste en tout cas manees nañu ko xaar ci ñoom ñii. Bougane Gueye Dany ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko gis nga ñoo bokk sax suñu xool kenn ki dafa takk ay kenn ki nag takkul. <laughs> candidat Benno Bokk Yaakaar devant le dilemme éliminé Macky Sall assure ses arrières. lu nekk xaj na fi de diggante choix bi ma am na fu ma gisoon sànq ñu ne waa parti socialiste dañuy investir kan. Jean Baptiste Diouf. Jean Baptiste. dañu koy investir. ñoom parti socialiste dañu am candidat. Ah le point final zone dix B lan la. Kombal bu Kumbal. Ah, est-ce que waxoon Kombal mën nga Kombal rek. Hmm? ODCAV bu Kaolack la Cheikh Ndiaye Kass laa lan diiral ma lii man sama laam bi dafa tax a. tirelire tirelire tirelire tirelire. démb laa doon lii ñu na. entre. tirelire entre jeu de maillot trophée médaille et enveloppe financière kon nag moom xam naa dañu ko tuddee rek final bi li mu yoroon ñëpp dajale ko def ko ci. daw ci dara. beneen tuddee nañ ko bës bi def na la mu ca man. aywa Oja lu waxtu bi jot na dikk na ah bi jot na. waaw waaw juróom ñetti waxtu jot na sànqam. moo ne neexoon na de ana Oja. waaw aywa wax Oja nag dafa andi. mais nag ni mu ko caricaturé nii nag metti na torop. aywa fu mu nekk nii moom la jàkkaarloo wax taskatu xibaar yi nee na ñii demuñu mbëkki de déedéet. ñii croisière la rek bato croisière. bu nekk ci géej gi. gaal gu waaw te dañuy ñëwaat léegi léegi léegi nii. xam naa ne bu ñuy ñëwaat xëj na nag mën nañ ñëwee si si dund comme mën nañ ñëwee si ñàkk bakkan waaye waax gi géej gi amul bànqaas de comme mool yee ciy dee jërëjëf lu gën a fës ci boppu xibaar yi. la ca gën a fës moo di intersyndicale bi liggéey ci secteur primaire nee nañu grève la ñu woote tey jeex ëllëg 48 heures la ñu décrété te nee na nag euh, kenn du ko renouveler la ñuy ñaawlu moo di non respect. Euh, li nga xam ne mooy protocole d'accord yi nga xam ne jotoon nañ ko waxtaanee xaatim ko benn fan ci weeru décembre loolee bokk na seen jàmbat beneen secteur bu nga xam ne ñu ngay dànqaafu mu di cadre unitaire des syndicats du transport ñu ngay ñaawlu bi nga xam ne directeur des opérations douanières daf ko génne ngir tere bis yi nga xam ne am nañu fukki at ñu daw ci tali bi Alassane Doye ak ay ñoñam daanaka démb dañoo woote woon jano ak taskatu xibaar yi daañ si dikkaat ci bi la jotaay xibaar usine bi nga xam ne farine poisson euh, maanaam farine ñu jën lay defar loolee nag association bi nga xam ne euh, la leen tax a jóg moo di lu na nabum cosaan gi maanaam pêche artisanale ak waa réseau régional des aires marines protégées ci Afrique ñoom nee nañu nag ñoo nga cay tiit ndax nag usines yi ñu ngay gën di bari sa sali lañu ñu ko waxee foofee nga xam ne ab ndaje la ñu saw woote juróom benn fukk ñaar ci ay cas de noyade ñoo xam ne ñoo lab ci géej gi si ndorteelu vacances yi euh, la fa ñu fa ñu ëpp nag xale yi di faatu moo di Malibu Malika ak euh, tefesu Parcelles Assainies si édition bi daan ci waxtaanee directrice bu sport jeunesse vie associative mairie bu Dakar Ramatoulaye Sagna daañ dem sa euh, lac bu euh, Gombo mi ngi féete si Kédougou lakk la bu nga xam ne ni daanaka euh, soxna yi fa la ñuy defee seen liggéey yu bari bokk na fa la ñuy fóotee fa la ñuy raxasee seen i ndax lu ni am na sax ñoo xam ne fa la ñuy sangoo ah waaye nag soo moytuwul lakk ba nag dana yàqu euh, dana dee ndax la koy waral moo di mbalit nga xam ne lañ ci fay tuur loolee metti na askan wi dañ ci ànd ak Fatulaay Mbay Jóob ci reportage bi la jotaay xibaar jéexalee koox mantulaay ci bundoo ci li yéen kaay xëy fësal faram fàcce gi ñu fës kenn ci ànd ak Simon Faye Mamadou Fofana Asma